tedd yi toog ci jotaay bi ñu di ci jiital Cheikh Mouhamad ñu Cheikh Mouhamad Mourtada nekk ci jotaay bi teewal fi njabootu Sëriñ Tuubaa yépp ñu koy jaarale ci moom di ziyaare suñu kilifa bu tedd bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bii di cheikh mohamadou muntaka ñaanal ko suñu borom yokk wéram yokk kàttanam yokk fanam ba yi mu sembu yu rëy yépp ci liggéeyal lislaam liggéeyal sëriñ tuba radiallahu anhu mu montali ko di ziyaare jëwriñam yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bu rëy bii tàmbalee ko ci Cheikh Bachir ibn Cheikh Abdul Qadir ak alxaaji Mbàkke yu fay ñoom ñëpp di leen di ziyaare di leen sant di leen ñaanal ñu dajeeg ngërëmul Sëriñ Tuuba waaye nag ci jotaay bi ñuy ziyaare bu baax nag suñu kilifa gi suñu jëwriñ ci tool bi mu Cheikh Mouhamadou Moustapha Diatara mi jiite comité scientifique bi ak bokk yu baax yi ko andal, Sëriñ Moxtaar Mbàkke ak waa Rawdu Rayaahiin yi nga xam ne ñoomin ñu ñoo ànd ci liggéey ba ca conception ba ba nëgëni Sëriñ Mbàkke Abdourahmane jiite lañ bi ko ànd ak sëriñ Cheikhouna Abdou Wadoud ak mboolem délégation bi nga xam ne ñoo ñëw muy mbooloo mu takku ñëw ci liggéey ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di ñaan yàlla jéego yi ak coono yi suñu boroom fay ci lu kawe jot dañuy njëkkanteeg waxtu wi rekk ci panel bii nga xam ne dafa dugg ci cadre activité culturelle yi am ci wàccaayu ubbitel Masalikul Jinaan muy jotaayi xam-xam yu am solo mën nañoo wax daanaka muy université bind yu am solo di fi jàll loolu lépp nag ci xalaatu comité scientifique bi ñu leen ciy ndokkeel bu baax a baax di ñi nga xam ne ñooy public bi nga xam ne ba ñu tàmbalee ba tey ñu ngi ànd ak jotaay yi moo xam ci jotaay teewaay bi la moo xam ñu koy seetaan ci média bi euh, panel bi nag dafa jëm ci universalité du message de Cheikh Ahmadou euh, ñu ànd ceeg ay kilifa yoo xam ne ñoo ko war a taxawee muy l'universalité du mouridisme loolu du ñu ñëw ci baat beeg loolu ñuy waxtaan incha allah buñ jëlee kàddu bi dana leer Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo.